jërë ngeen jëf internet yi bàyyi xel MPROD TV ak lool jàkkaarloog a ah. ñu ngi leen di leen ziar bu baax a baax tey nag ñu seet ki nga xam ne mooy Ndiaye Sénégal nag ràññee ko bu baax a baax mu doon photographe di def liggéey bu am solo ci ay bés nag amoon na fi ba ñu nekkee ci màggalum Touba bi si digganteem ak ki nga xam ne mooy Ngoy Fall ñu ràññee ko bu baax fii ci Sénégal aussi tamit Ngoy borom oor yi ñoom ñaar ñu jotee ci ab li nga xam ne mooy yaa ma photo photo woo ma ana samay photo na ko jox ma sama xaalis ki nga xam ne nag mooy Ngoy ñoom ñaar seen diggante tàbbi foofee ca kër buur mbir mi nag nekkoon kër buur booba néegi ni kenn ku nekk di xaar xool ah, fu mbir mi di mujjee ñu bari nag génn nañ ci di si yéey yàbbi mais booba néegi ni Ndiaye kenn déggul mu wax Ndiaye nag mu tey damay leeral sénégalais yi ndax nag ku am tur sonn kuy liggéey sonn dama koy bàyyi mu nuyu internetu Impro TV ak Dakar Buzz Ndiaye ñu ngi lay waaw ñu ngi lay fay waa waa Impro at waa Dakar Buzz quoi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa Sénégal. leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. macha allah macha allah Ndiaye koy wax léegi samay njëlbeenu wax coow li bëri na ñu bëri xamuñ nu mu demee waaye kekk boo ko ci coow moo mën a expliquer coow bi ni mu demee Ndiaye nga doon photographe lan moo la booleek photographe avant tout. waaw photo soo amee seetlu man dama see juddu muy wàllu audiovisuel ndax sam papa avant RTS di exister dafa nekkoon rajo Sénégal sur l' ensemble de ses réseaux synchronisés après RTS euh, ñoom noo ko inauguré seen loxo la tijjee après mu fay liggéeyee mu nekk célébrité ñëpp xam ko ci Sénégal. kon man wàllu célébrité wàllu audiovisuel dama see juddu waaw léegi nag juddu ci lu lu naan ni euh, doomi mbër jàngil bëri ju waaw juddu ci mbir taxul tamit yow nga mën loolu da kay koy jàng ji ndax man def naa sama école primaire def sama cycle secondaire au lycée Blaise Diagne def euh, sama cycle euh, eggale ko de la Fosse cinq ans Blaise Diagne deux ans de la Fosse def sama formation audiovisuelle génn major sama promotion doon un photographe professionnel de classe exceptionnelle waaw kon nag métier bi jàng naa ko ba mën ko waaw di ko exercer nag comme il faut quoi mhm. nga jàng métier bi métier bi bari ay inconvénients wax dëgg fa ne yàlla ndax métier photographe moom mel noonu rawatina milieu bi ku nekk day bëgg a photo màggal jot ñu màggal ba pare nga am coow sa digganteeg Ngoy Fall est mën nga ñëwaat ci coow li nan la demee ndax wax ji bëri na waaw kon lu waykat bi wax rek naan ñam bi lay rey baa ndox boo ko xamoon doo ko laal mhm. cambron nga ndax man bu nekkoon euh, Euh, damay gént ni que coow bi day am kon amaana sax duma dem xam nga waaw ndax tamit wax dëgg yàlla yonent bi nee na fitna mu ngi nelaw te ku ko yee yàlla rëbb na la te man ñi ma xam dëggantaan xam nañ ni man ci jàmm laay dox certes nag ñun am na ay passé xam nga mais nag moment yi may dund nii bon man jàmm laay wër xam nga euh, Ngoye Fall société maag moom sunu xamante moom sax moom day bubu koo ne à ce que man xamuma maanaam man benn inconnu laa moom day jéem a jouer le jeu di wane que man da doon def lu baax pour dimbali ma ba lii fekk ko ci tel n'est pas le may man doomam man moo ma booleeg moom Maymuna moom moo ne France moom ma booleeg yaayam ne pour ma foto ko ci màggal gi d'ailleurs moom sax dafa ma dafa saaga sama yaay ba menacé ma Maymuna boobu ah saaga na sama yaay ba menacé ma nee na yéey yaay te moom problème bi da lépp la dara ump ko ci ndax société kii yee nekk nii message yee nekk nii yu doon waxtaan maak moom yëpp yàgg nañ waxtaan nag maak moom kon problème bi yëpp lii yëpp may mun a moo jël sama numéro jox ko yaayam jël numéro yaayam envoyé ma ko présenté nu kon nag lii mindaan bi di wax naan mooy doomam kooku du doomam muy astu joon na kooku ab mindaan la fa ci kër ga kooku sax su ma nekkoon ay parents am dama dam koy déshérité ndax moom day blanchiru gis nga euh, nit at lépp loo mënti mel ci àdduna rek comprendre nga na nga ko gërëmee say pap say waay waajur bul branchiru quoi dem di uti beneen pap wala beneen yaay moom mindaan la ci kër ga te daan yi genre kër yu demee noonu ñoom dañ fa am benn place boo xam ne foofu lañ leen di teg kon moom lan la am ñëw diw kii moo lay seet ma arrière mu yéeg wax maire bi maire bi am na caméra de surveillance yoo xam ne soo ñëwee dañ lay gis après nu recevoir la garde corps yi escorté la nga ñëw toog ci kër gi man euh, amoon naa moom mu ngi dëkk cité Mbàkke yu fay mooy mu kii cité de la renaissance bu nekk euh, côté Mamel yooyu noonu waaw ba ma doomam mettre en rapport ak moom doomam may mun a faal je pèse bien mais moom ndax xamante nañ bu yàgg comprendre nga moo mettre en rapport ak yaayam ñu échanger ay numéro man nag par la suite nag par coïncidence ma amoon fa benn reportage ba ma dóoree ba pare laa dégg ñu ne ma maire bi kat fii la dëkk ma ne konte maire bi fii la dëkk te joxoon nañ ma numéro am ça fait nag ma seeti ko ndax may mun a moom ma jox numéro am message yee nekk noon man tam ba ma ñëwee ñu ne ma ni maire bi nee na pour nga fi jaaraat fii nangam sanga dafa am ay gan ak expliqué boobu maa ngi fekk mindaan bi defe naa at waa mindaan bi laa fekk at gardien manque de civilisation weesuwul nit ñëwul sonné nga ne neel diw demal xool kan la nga foto ko dafa mel ne nga ñëw sama kër ma nga sonné mu ne la entrée rek photo la. yaa ngi parce que min naa ne moom leena leena maire bi daka ne demal xool kan la parce que lépp day jéem a jouer le jeu ndax maire bi moom benn day teg benn scénario. xamul ne scénario yooyu muy teg ñun si la ñuy liggéey ñun ñoo ko dàq scénario noo ko dàq réaliser. comprendre nga léegi nag nee na min naa nee na léegi demal xool kan la après nga photo ko mais aajowul photo da ngay bàyyi caméra de surveillance bi yow néegam la toog am na écran bi boo ma caméra de surveillance bi jëlee kay amul problème dina xam kan moo koy seet te xam na ko sax ndax boo naan ak moom mu joxaat ma rendez-vous ma ne ok fàtte naa ko nekk sama liggéey ba moment yu may livré ji album bi nag ma ne xaaral ma defaat fi benn yoon mais juguma sama propre initiative naan damay seeti Ngoy Fall pour mu jël ma ndax man bientôt ma am vingt ans ci métier bi ma ciy exercer juddu gu rëy ndey ak bàyyi taar yàlla fu laak fayda borom man. personnalité at fulla boobu man am naa ko certes nag bon man damay daw coow lu tubaab naan accepter de subir ne veut pas dire que avoir peur daw coow at tapet bokkul maslaa yooyu yëpp bokku ci man damay sonn samay job comprendre nga léegi ba ma doon livré album bi tamit après maire bi tamit ne garaawul amul problème dafa jàpp naa la woo ma ne ax ah, garaawul man fàtte woon naa ko sax yàlla xam na loolu fàtte woon naa ko man daal añ naa ba pare di dem maire bi woo ma ba ma doon woo téléphone daf ma woowee ci numéro doomam woowee téléphone parce que tamit dafa bàyyi ba veille bi lépp jàmp ba mu expliqué nag ne ma nii day màggal xam nga affaire yooyu nangam sangam allo man la koy faal expliqué wax ma ne ko ok d'accord mi ne ma bon man damaa bëgg instant yi ndax yow am nga page Instagram YouTube ak yooyu noonu affaire yi loolu yëpp am naa ko yooyu moom xam naa ne bon peut-être sax sa doom wax mais yooyu moom bon am naa ko quoi après nu wax mi ngay photo bi bon ma ah bu nekkee événement 3 jours bi dina xaw a métti de mi ne ma ah de mën naa di fay photo 1000 francs waaw tamat sax man amoon naa fi job amoon naa fi liggéey de ma bàyyi job bi xam ma ma ne amul problème garaawul bon puisque photo 1000 francs 3 jours soo ko defee at temps fort yi soo ko jëlee amaana yu di nga am loo ci soxla léegi maire bi tamit bon moom nag xam naa doon bañ ma laaj ko avance mu waaxuma ci carte gi ñëw dama léegi naa la jox sama numéro doom après nga coordonné ak moom man moom de toute façon man moom ku ma liggéeyal ba pare moom incha allah ma deseet kenn xaalis ne ko ok d'accord amul problème parce que man alal fu fekk fa may bàyyi man alal du ma boole jaamu yi maire bi li ma amee nii am na ñoo xam ne amee nañ ma lu ko ëpp yóbbuwu ma leen police porté wu ma leen plainte ndax man rus naa nit ameel ma xaalis ma lay statut di la gaaruwaale ndax man dama am ay clientèle yoo xam ne man dan ma xam ko waa man Sénégal fii dan ma xam comprendre nga léegi yow imagine toi tey ma nga dégg ni njaay mu ngi porté plainte Ngoy Fall wala Ndiaye tamit mu ngi porté plainte benn client am di ko yóbbu police kon nag yow yow bii boo nekkee sama client da nga may ragal da nga naan Ndiaye bi kat yàgg naa ak ameen xaalis baa du ma yóbbu police loolu day yàq sama marketing day yàq samay bagage moo tax man soo ma ameelee xaalis suñu échange te ay ay ay ay wax na yem ci yow mu yem ci man xëy na soo ko déggee feneen yaa fa yóbbu waaye pas man ndax vingt ans musuma porté plainte doomu aadama parce que daf ma ameel moment bii may waxee ak ñu ma ameel xaalis ci dëkk bi xaw ma nu mu toll ndax bëri nan waaw léegi tamit moom instant yi Ngoy Fall nag ba mu ba wax ba mu joxee numéro doom ma contacté ak moom maa ngi fi déparé si lendemain bi ay 14 heures egg Touba 3 heures du matin joxuma paas man maa paasal sama bopp man maa yóbbu samay matériel yëpp waaw te ba ma doon dem sax yàlla xam na ni barki alxuraan dama feebaroon waaw mais man xam rek man noonu laay joobee man su ma tëddee rek mais gaawu ma tëdd nag ah ma départ dem ci coono yu métti dugg naa saret yéeg ay oto xam ma fay taxi ba mu yóbbu ma ni nit ñi ma wàcc ba ma ñëwee 3 heures du matin doom ji moom kii sax dugal e noo def ça va bien lépp jaam waa ok yéegal ci kaw man tam ma yéeg ci kaw dama tàllee ko rek daanaka mu leer xam nga man tam ba mu jógee tamit gis naa préparation yi ngay jël temps fort yi jël doo war a jël xam nga il faut être professionnel quoi ci wàllu métier bi man du ma ëppal ci mbir mais damay xool lu nécessaire ci événement man ma jël ko man du ma xaabaabal di dem noonu laa def di jël di jël di jël di jël ba guddi deux heures du matin ma tàllee ko waat lendemain mooy màggal gi jouru màggal gi nag ma ñëw fekk booy di jàng xasida alxuraan tamit ngay jël préparation bi ngay jël waaw noonu jàppee ko noonu di jël maire bi di ay doomam di jël jëkkër ji at invité yooyu noonu quoi noonu laa leen doon jëlee ba guddi gi tamit nga enchaîné guddi gi nag des fois damay yëg ci kaw sax naan comprimé pour tuuti pour xaw a tenir ndax tamit tuubaa tàng na metti na ma jàppee ko rythme boobu ba 8 euh, heures ci suba 9 ma ma su may matériel nekko ko mais man pare naa maa ngi dem moom mu doon dem nag mu yëkkati 50 mille jox ma 50 000 boobu bind ko signé wu ko envoyé ma ko Orange Money amul benn traçabilité waaw ku leen xaq wala mu na mu ran waxal dëgg donte dañuy jël sa bakkan man alal fu ma fekk fa la may bàyyi comprendre nga fiftinuma lif su barki yonent yàlla mu Muhammad barki leeru alxuraan soxlaa ma ko maire bi sama travail soxlaa soxlaalu ma ku téeméeri dërëm te cinquante millions yi ba ñu demee démb tribunal mercredi man wax naa juge bi ne ko moom cinquante millions yi mu ma jox mu ma jox man at moom at sunu borom amul mu mënu ko génnee fen mais man am naa ragal yàlla bu taxaw devant tout le monde ne jox na ma cinquante mille ne ma paase ma ne ko ma ne ko d'après lu ma liggéey poto sax ëpp na mille mais grawul quoi léegi nan ne huit cent mille nga ma war a jox mais cinquante mille au moins sax jox ma moitié bi quoi. parce que dafa am ñoo xam ne tamit ay ay xale yoo xam ne ay waaw nooy ànd ak man ñoom waaw éléments yi damay liggéey ñoom te ñoom dama leen di fay maire bi tamit di cinquante mille jox ma ne ma ni xoolama ma photo yu gën a rafet nga publier ma ko sa page. non non cinquante mille daf ma ko jox transport ne ba ma ba ma ñëw Dakar parce que boobu amoon na ay ganu Gambien yoo xam ne da doon jox paas xam nga suy joxe foofu moo ni affaire yooyu quoi man nag euh, aw ma euh, kii wu euh, di joxe xaalis si biir nit. wala di xuloo client ci diir biir nit parce que dafa ma war a jox lii man lépp lu mu koy bëgg a def ci sutura léegi ba ma joxee cinquante mille nag ma ne ah mais lii nekk mi ne ma noo xoolal paasal bu ma ñëw Dakar man de toute façon du ma la yoreel dara man soo liggéey dama lay fay sa xaalis fu ma toog laay toog ma envoyé la ko ma ne ko ok d'accord léegi mi ne ma xoolal ma yu gën a rafet rek nga dugal ma ko sa page kon yeneen clients yi noonu ma koy waxee ndax man sama page Instagram man soo ma joxee autorisation ma dugal ko aw ma problème boobu soo ma joxul autorisation ma retiré ndax photo yu ma nar a publier bëri nan dunu jeex moo nekk nii ñu si bëri sax dañuy bëgg ma dugal leen parce que man man man dama foto foto bu indécente foto boo xam ne yiiwul ma ko foto gis nga lii yëpp nii ay foto la ñu ay image yu yoo xam ne rek ñenn yi dañ mel naan ñenn yi sax seen jëkkër noo may naan waa Ndiaye waaye gisaguma sama photo waaw man kon jox na ma fa te en plus tamit même sax bu dul loolu maire bi ku ko xam ñun ñoo tax nga xam ko ci dans les réseaux sociaux maire bi ñëpp moom day passé inaperçu ci réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi page boobu fël gis ay photo màggal yeeg gàmm yu muy def xanaa kon jox na ma autorisation bi tam moo ma mais moom day xamal ne que gars yi man xamuma da doon def ta yàlla rek tax day léegi nag ci tabaski yi tabaski yi day maye ay xar day dimbali jaamu yàlla yi mais maye at maye xaru tabaski am na lu ko gën muy fay bor ndax nit ki boo ko liggéey loo loowee yonent bi nee na soo bàyyee ba ñaqam fendi lu Seydina Muhammad wax salaa salaam wax nee na boo bàyyee ba ñaqam fendi nga nga soog ko fay ameel nga ko àq donte fay nga ko mais amee nga ko àq léegi ba mu ko ba ma duggalee sama page nii mais xam nga tubaab dafa ne qui veut tuer son chien l'accuse de rage oh. comprendre nga parce que maire bi moom jëlu woon intention fay ma mais léegi day dingat sama liggéey ñëw ne ma photo yi rafetul parce que après sax damaa ñëw këram ba ma ñëwee këram tamit moom déjà am am ma ñëwee gardien bi dafa sonné ne ma taxawal xaar ma arrière man damay arrière chaque fois ba caméra de surveillance bi jël ma comprendre nga ndax dugguma këram par infraction defuma violation de domicile bokkuma si association des malfaiteurs jaay ma yàmba jaay ma drogue yoruma arme blanche man su may ñëw damay sonné arrière caméra bi jël ma gardien bi ñëw nu escorté ma nekk ñaar ñëw yéegal ma deuxième étage mu toog ma teg ma ci salon bi ma jàkkaarloog benn caméra de surveillance waaw léegi nag maire bi moom xam naa à chaque fois day fàttali jaay ci milieu audiovisuel la nekk man def naa son def naa caméra image xam nga def naa photo quoi léegi sooy wax ak moom jël téléphone bi tak rek commencé la enregistré waaw moom noonu lay def man su may enregistré man xam naa ne moom may enregistré xam naa ne caméra de surveillance bi noonu may filmé xam naa ay preuve la la bëgg comprendre nga mais man defuma lu ñaaw waxuma lu ñaaw xam nga amul problème quoi man loolu du sama du sama cas léegi du coup moment yu may enregistré ndax maak moom sax jotoon nañ am ay tiraillement ba ma xam kii fu mu jëm maanaam du ma fay léegi nag man waaw man xamoon naa loolu quoi parce que tamit bët bu naree war day sew parce que tamit daf ma commencé woon ay tànk parce que yàgg nañ si métier bi quoi ku ci def presque léegi vingt ans am nga ci expérience genre client yi yàgg naa ci dal mais man chaque fois man dafa am dama leen di contourner naxanteeg ñoom fexe ba di jël sama xaalis te problème du du am xam nga léegi ma ne garaaw léegi nag compte situation bi demee na nii léegi man su ma tegee metti bi amaana sax li ma bëggoon du ko am léegi naa naxanteeg moom ba jot suma xaalis après bàyyi ko wax ji wan ko ginnaaw dem léegi nag man xam naa ne moom may enregistré lu mu mun a am waaw waxal yaa fi ñëw yaa fi ñëw waxal yaa fi ñëw ah, xam nga waaw léegi nag moom lu mu bëgg a dégg man man ma ko koy wax pour su ko defee nag boo xolam sedd nag ma ne ko waa léegi pare nga mi ne waa ma ne ko waa léegi jox ma sama xaalis ma dem man sama objectif loolu la woon su ko defee su ma joxee sama xaalis ma dem mais fas yéene wu maa woon fay ba ma demee ba dëgër fas yéene na moo ko fay tama bi jóg na maa ngi dégg min bi nii ne ba ma doon ñëw foofu fekk ma fa paa bi deux fois yu ma ñëw ci kër gi yëpp fekk naa fa paa bi jëkkëram moment yu doon wax nag di xëccoo garde corps am ngi toog doom jee ngi toog ci ginnaaw mère bee ngi toog di ajaka aj di xam ma di yëngal mais ma reste zen quoi ma calmé man tamit moment yooyu nuy wax di wax di wax xam ma ba jëkkër ji tamit ñëw ba mu ñëwee tamit dugg ci coow li waaw ba mu duggee ci coow li tamit may expliquer muy expliquer mu xam ma ne ma ni yow soo muytu sax dina la diffamer dina la porter plainte tëj la maire bi jëkkër jëkkër ji moo ko wax maa ngi taxaw moom barki rasulilah man damaa bëgg maire bi suy génnee audio gis naa mu génnee benn audio boo xam ne 33 la ñole mooy ba nga ba nga ma doon wax ne naan yaa fi ñëw wala ñëwoo fi no sooy génnee ojo wala ngay génnee vidéo soo ko defee ay coupon jël conclusion bi indi introduction bi yooyu day indi problème sooy génnee da ngay génnee lépp ñii mën a seetaan comprendre film bi ndax moom day nee na moom scénario bi lay def léegi sooy génnee vidéo da ngay lépp ñuy seetaan mën a xam ni kii lu xew waaye soo daggee waaw gars yi ne ah kii de nee na waa fii nga daggaat la di dagg-dagg ñun yooyu dañ koy xam image boo ko daggee dama koy xam boo daggee ojo dama koy xam ndax man li ma wax man ba cour de la soma ne woon Ndiaye ndax li yaa ko wax comme démb tribunal damay naan maa ko wax comprendre nga jëkkër yi tamit ñëw toog léegi nag moom ba ma doon saaga maire bi xam nga saaga na ma si këram xam naa nag daf ma bëggoon provoqué ma def naka su noonu léegi su ko defee nag chef d'inculpation yi dal sama ndodd jeu boobu yëpp xam naa ko waaw léegi saaga boobu mu ma saaga na fexe ba suy génnee audio yi na ci boole waale saaga yooyu xam nga menacé wu ko. xam nga nit euh, seule la vérité blesse nit dina la wax dëgg nga ne diw daf ma saaga te alors ko saaguma la mais dëgg laa la wax la preuve en est lu muy tuddee menace ba mu ko jëlee ba ba yóbbu ko tribunal kii bi nii euh, procureur bi dafa écarté loo ne lii du menace vocal yooyu ma ko envoyé mu nekk ñetti vocal mi ne menace na ko génnee ah moom de ma koy envoyé quoi léegi nag jëkkër yi tamit ñëw toog ban waxee noonu après ba dënn bi dënn yi jóg noonu bu affaire yi tàng jëkkër yi ne ko léegi yéegal ci kaw xam nga mun naa ma man du ma fay photo xam nga ndax moom photo yi rafetul mais moom moo rafet nee na moom moo jongo ma waaw moom moo jongo ma moom moo rafet mais photo yi rafetul ma ne ko ah kon photo yi rafetul mais yow yaa rafet su ma la déggee man tamit ma ne ko man de dégg naa lu nekk ci wàllu photo mais bii musuma kaa dégg léegi yow yaa rafet waaye photo yi rafetul ma ne waa ok d'accord jëkkër ne ko yéegal mu yéeg jëkkër ji tamit woo garde corps bi ne pour mu jël sama numéro après mu envoyé bi ma ne ko amul problème ma wàcc dem jëkkër ji moom mu gunge ba ci suuf léegi caméra de surveillance bi nga xam ne mooy jël mbedd bi image boobu dama bëgg mu génnee ko ba jëkkër ji demee ci oto ba may taal sama moto mu woo ma jëkkër ji moo ma ne jeune kaay yi ma ñëw ci otoom mu woo doom ji doomu doomu doomu ngoy faa bi ne ko ñëwal mu ne nii nee leen seen yaay jëkkër mooy wax ne mi ne nee leen seen yaay mu fay njaay xaalisam moo ko wax am na caméra de surveillance parce que man du ma waxal nit ki lu mu deful quoi am na caméra de surveillance yoo xam ne mbedd mi mooy jël angle bi image yooyu naka man du ma sosal nit du la yokkal du la wàññil mais man damay relater les faits man selon lu ma dund at loo ma wax man loolu laay wax comprends ndax avant tout damaa dëkk ci dëkk bi bokk ci dëkk bi man du ma nangu tamit nuy tilimal sama der mhm. ndax man damay soxla sénégalais yi damay liggéey damay soxla clientèle damay bëgg a gars yi xam ma damay joob comprendre nga kon nag suñu jëlee ay wax yoo ay waxu ndaxu sa xandang dóor ma ko sama ndodd bi lu naan weddi du ragal waaye teggi tuuma la dama koy teggi comprendre nga man tamit ma taal sama moto mu ne ma ok d'accord man tam ma dem ba ba euh, lendemain kii bi ay une heure du mu envoyé ma vocal da ngay faal ne ma photo yu ma envoyé yëpp maa ngi koy téléchargé mais dara ñëwu ci waaw en tout cas maa ngi koy xool nangam sangam xam ma xool lire vocal bi teg tëdd nelaw yeewu lendemain bi ay 19 ma demaat fa ba mu fay demee ay 19 heures comme d'habitude rek man damay sonné taxaw xaar gars yi ngeen escorté ma ma yéeg man tam ba ma yéegee nag deuxième étage après ci balcon bi la ma teg ci salon bi nii ak ñaari garde garde kooram ngoy ngoy faal ñëw toog man tam toog jàkkaarloo man ne ma nii nag léegi envoyé ma foto yëpp ma ne ko waa mais envoyé mi ne ma non envoyé waat ma ko man tamit ma ne ko man instant man lu ma jënd ci connexion dafa bëri ndax Touba nii man tam ma sélectionné photo yëpp ko ba photo yi ñëw mu jóg mu naan bii neexuma bii neexuma xam nga loolu dafa yomb imagine toi nit photo la 100 photo nga jël 98 photo yëpp ne neexuma léegi 1000 francs laa lay fay ci koo xam ne 3 jours la la liggéeyal dans des conditions vraiment très difficiles xam nga tamit loolu day day metti quoi mu dàq dàq ne ma yii neexuma léegi nag vingt 25 125 photo laay jël xam ma joxoon naa la 50 000 ne ma xaaral ma ñëw mais at benn temps boo xam ne xam nga wax ju neex sarax la. Ah man am na nooy waxeek man rek da nga may am mais am na noo may yëngalee rek man damay gis sama bopp ndax boobu tuuti des ndax boobu mer naa ndaw si wàcc xam nga ba mu wàccee nag après jëkkër ji yéeg ba mi temps jotee jëkkër ji moom mooy yéeg mi temps waaw waaw deuxième mi temps bi deuxième partition bi moom moo ko moo ko def quoi léegi jëkkër ji ba mu yéegee ñëw ne ma bon Alioune Ndiaye ça va bien expliqué xam nga ne ma voilà léegi maire bi expliqué na ma photo yi ba de toute façon su ma la bàyyi loon moom du la fay ndax man xam naa ko ah, waaw ne ma nii soo ko su ma ko bàyyee sa su ma la su ma leen bàyyee yéen ñaar du la fay léegi soixante-quinze mille la ma jox bon man teg naa ci defe naa cinquante mille léegi doolu da bind signé war ne ko dama la ko may ma ne ko may mi ne ma naam ma ko man lebu ma yarwaanu ma àbbu ma man damay joob du may fay fii li tax ma ñëw fi si biir kër gi dugguma fi par infraction vous me devez mon argent moom laa ñëw pour récupérer xam nga baa bi ne ma non non kon damay dema ah, soo wax loolu léegi extra damay dem wala ma génne ci léegi affaire yu demee noonu expliqué xam ma ñàngal affaire bi baa bi kat yi cent cinquante mille jox ma ma signé après mi ma noonu lii dem la ko may ma ne ko père mi ne ma naam ma ne ko man ñaanuma te barke leeru alxuraan laa la wax nii lii loo ma ko dama jàpp ne dama koy comptabiliser si lu ma amee joxoon na ma cinquante mille cent cinquante mille dama ko jëndee deux cent mille léegi lu ci gën a garaaw bi dafa dem xamal ni ma maire bi que cent vingt mille la ma jox vingt cinq mille daf ma ko may moo tax maire bi ba mu ba muy ba mu porté plainte gendarmerie dafa déclaré cent soixante quinze mille ma ne ko maire soxlaalu la fukki dërëm maa ngi ne gendarme bi PV maire bi lu mu wax cent soixante quinze mille la ma jox yokkaatal deux cent mille la encore man soxlaalu ma ko dërëm maire bi foofu nga ko waxee sax dafa xaw a tiit ànd ak mindaan bi ak suq yi foofu noonu xam ma waaw man ñooñu sax man dama leen tudd quoi ñooñu ko ci def sorti moom ba génn di wax sama sama affaire duma la boole samay mbir ndax man la chef suprême laa ko sekkal moo tax man am na ñoo xam ne man dama leen tudd samay bagage waaw peut-être lu mënta ñàkk foofu mu am damay nekk di expliquer bon du ñàkk da nga leen di raaxaale nii rek avant avancé xam nga léegi paa bi tamit ne ma waxal ma moment boobu nag man rek si laa mer kalaate tuur naa fa sax xéwal ndax dama mer contrôler sama bopp nag ba yàlla dogal paa bi di ma dëfal naan ma noo jeune am garaawul jox ma sa numéro naa la utal marché expliquer ma dëfal ma wallaahi ma ne ko non garaawul amul problème te man sax dama geddoon ma ne ko léegi xam nga xaalis bii sax man xamalan la jël leen ma may leen billaahi wallahi tallaay paa bi moom ma forcé bu jël xaalis bi dugal ko sama loxo. cent 800000 la. 800000 waaw ëpp na 800 photo ëpp na ko mais man pour bañ coow am nii man dam dama naan jox ma benn somme 800000 rek pour su ko defee man xam ma da ngay waaw jàmm mën a am ko waa man tam ma wàcc dem. après man nag bon nit kese nga moom vocal maire bi wax ko li mu koy wax ci vocal yi. xam naa ko nag ne ko yàlla dina nu àtte. comprendre nga yàlla dinañu àtt ndax ameel nga ma sama xaalis lekk nga sama àq ameel nga ma ñàq te tamit yàlla dafa def man dafa am ñoo xam ne dama leen ameloon bor ndax man jël naa sax sama xaalis 200 millions yooyu man dugg ko ci liggéeyu maire bi barke rasulilah am na ñoo xam ne dama leen waroon fay billaay wallaay tàllaay ñooñu man maay liggéey pour fay leen seen alal ndax man gor laa ko waa deretu gor mooy daw sama yaram man rus naa ameel la xaalis tey nga may woo téléphone man balaa nga may woo sax laa fay te bëriwul sax man lu may jàmmat wala lu may lepp xam nga parce que dama am loo xam ne at ma reportage bu ma yàqaloon Dakar nga xam ne su ma toogoon fii sax naa am dara mu yàqal ma loolu yëpp ba pare liggéeyloo ma ba ma feebar fayoo ma ba pare wax ma wax bu naqari ma dóor ko sama sama vocal. xam nga tubaab nee na seule la vérité blesse des fois nit dina la wax benn affaire nga ne kii daf maa saaga fekk saagu la dala wax rek dëgg moom tamit pare naa ci. ba mu ko vocalé vocal boobu su ko su ko kaloon foofu. am na lu ko métti man tam am naa li ma métti moom vocal yi na ko man amaana liggéey loolu ma ba ma feebar fayu ma ma am li ma métti kon mën na ko kal foofu mais yaakaar na ne que man dama koy yóbbu man je ne suis pas genre man du ma genre nit yooyu nga xam ne damay danga may ameel ma porté wala ma weeje la wala ma xuluk yow man rus naa nit ameel ma xaalis ma lay statut ko def te lu ma yàgg na ma ameel som bu ëpp boobu quoi mais man du ko def soo ma ameelee xaalis fay ma soo ma mënul fay kooku yow la dem naa sama yoon léegi nag ma toog deux jours après gendarmerie woo ma brigade de recherche bu nekk euh, fédère ba ñëw ne ma nii fi am plainte ma ne ko man plainte mi ne ma waaye mi ne ma nii ah am nga fi plainte ma ne ko kan moom ma plainte mi ne ma Ngoye Fall ma nekk muy gendarme bi ma ne kooku man maa ko war a porter plainte man maa ko war a yóbbu ci média yi te loolu yëpp defuma ko ci du coup ba ma ameelee sama xaalis premier jour su ma neexoon teel a daw porter ko plainte su ma neexoon teel a daw ci média yi def ko mais nit at nu ma mënti doon rek gor su ne gor nga te sutura dafa baax ci jaamu yàlla yi mais moom suturaalu ma dafa bëgg a xaawi sama sutura man tamit ma dem wuy ji ba ma doon wuy ji dama damaa ngi wàcc sama frère ne ma xaaral ma taal oto bi ak sama jarbaar dem ma ne ko damay dem wuy ji rek ñëwaat parce que man xam naa ne man li ma ko wax noonu aajowul sax ay garde à vue man ba ma demee nii daanaka man waxuma sax moom ñëw na expliqué na yéeg wàcc ratatatatat man man li ma bëggoon wax sax billaay wallaay tàllaay nu ma temps pour ma développer moom mu wax wa wax après exemple ne ma ok yow taxawal fii dañ lay téye naa ma yow yaa wax lii affaire yooyu ah nangam sangam lii menace ma ne ko noonu lii du menace man xam naa ne du menace ndax menace man néew ma ko soo fi génnee wala su ma la jàppee non non non yooyu doxuma waa ji ma fa man tam ko ok man tam ma def fa 4 jours. waaw li tax tax nekkin bi foofu li tax ma sonnoon parce que déjà man avant may dem nelawuma ndax dama enchaîné ay reportage jóge foofu feebar enchaîné yoonu màggal Tuubaa bi def fa 3 jours. xale yii doon ma liggéey loo ma billaahi dama leen taxaw ba ay 3 heures du matin laa doon génne di tawte di di di di di di ñibbi léegi coono boobu noonu mu nekk 3 jours Touba 3 jours fii nii moo accumulé wu sama yaram ba def ma benn fatigue nag ma commencé am métti bopp nag di miir léegi nag moment yooyu ñun may arrêté nag moo tax nekkin bi foofu xawoon métti ndax boobu dafa fekkoon dama jóge ci feebar at fatigue général bu métti moo tax nekkin bi sonn man tam ma dugg ma fanaan def fa 4 jours. léegi ci biir 4 jours boobu dafa am lu fa xew parce que man euh, ba mu fa defee 2 jours sama ñoom yaay sama dafa yónni sama frère bi ni nee leen tafaa naa dem seeti ngooy Fall pour mu bàyyi lépp man xam naa sama yaay mag la dafa am ay at yu avancé mag la man bañ naa ko ba su may ñëw néegam pour di ka seet si di ko fëgg damay dire sama tànk pour mu yëg ma ndax soo ko nee meer rek day tiit waaw moom moom noonu la mel moo tax avant may ñëw damay direeku pour mu xam ne am na kuy ñëw mane sama frère bi waxal sama yaay ak sunu waa kër bu fa bu kenn dem di gisi yi ngoy faal di ko ñaan njekk di ko baalu loolu lu wér la man maa ko wax commandant bi mu may dégg commandant bi dama ko ne commandant al ma téléphone ma woote chaque instant ba mujj gi sax sama frère bi dañ doon jàppante foofu ndax man tey sooy di ñaan njekk day mel ni yaa tooñ en moom yan ngoy faal soo koy ñaan njekk moom day gën a serrele étau moom genre yooyu du baale moom bu la jekkoo rek day mettre la pake moom du baale du nit koo xam ne day bàyyi wala muy arrière man xam naa nit ki man xam naa ne ñoom suñ fa demee ba ñëw dañuy retourner bredouille duñ am dara cinq appels yoo xam ne gendarmerie na ma doon may tel appel pour may wax wax bu gaaw bu buñ fa dem sama yaay def délégation tamit dem fa bon ma ma am raison seen kaw maire bi nax leen naan dina retirer plainte bi moom lii la ma wax commencé néew yi c'est-à-dire xam na man damaa siiw moom ay siiw ay buzz moo leen sonal waaw maanaam man damaa siiw xam ma moo tax man soo may dugal fii danga war a xool ay buzz lan mooy buzz lan mooy siiw siiw day jaami borom léegi siiwul nee na moom nee na man njaay mii nee na man buzz moomu ci dugaloon mais moom moo buzz boppam kon ku dee ci marché yaa tàggee sa bopp man bu nekkoon man buzz laa bëgg dëggantaan du coup ba mu tichoolee ma neexoon teel a daw ci média bu nekkoon man buzz moo ma dugal mais yaa ma porté plainte nit ki ba pare ba nga doon ñëw gendarmerie muuru takk say say gille kenn xàmmeewu la nga yooru nank dugg denculu ma yaakaar ne nag man kenn xamuma pour moom man inconnu laa man Dakar laa juddoo màggee fi yaroo fi samay mag yëpp dakaar lañ juddoo fii màggee fi yaroo fi sama septième maam sama septième maam Gorée la juddoo kon ñun Dakar fii lañ dëkk kon ñun ci dëkk bi kenn gënul fi dëkk doonoo dëkk Dakar ñun sa fi sàpp moo tax moom ma jàppee tey gis nga classement bu am lu mu daj cin daju ko ci taal daj na dëgg foofu bu baax a baax a baax a baax comprendre nga léegi nag mu ñëkk man tamit ma ne commande naa mi ma am nekk defeere leen ma ma dem man xam naa ne su ma taxawee tribunal ñoom mënuñu ma dugal mais man ñun ñun mais man ñii dama yaakaar ne ñoom noo moom Sénégal wala ñii ñoom moom justice mais dafa mën a nekk amee nit ki xaasam ko mais mais c'est loolu c'est quasi impossible loolu mënul nekk amul fenn ci monde bi yow koo xam ne dóorunu la saagunu la defunu la dara léegi nag instant yi peut-être du ñàkk peut-être am na ay relation mi ne xaaral mu faagaagal ma mu yaakaar ne man noonu laa man da ngay ñëw rek jaar sama kaw jàll a ah, déedéet man nag dama yor arsenal waaw man waaw wax dëgg yàlla moom saa yi man du ma dóor nag mais nag soo soo naree dal sama kaw moom soo dalee sama kaw di nga xam ne dal nga ci kaw góor yàlla maa tax ba mu dalee sama kaw moom xam moom yëg na ko nag xam naa ne vibré na ko yëngal na yaram bi waaw comprendre nga léegi nag si lañ demee tribunal tribunal ba ñu fa demee démb massacre la woon waaw xam nga mooy sànq waxoon naa ko neenaa naa la ñam bi lay rey baa ndox boo ko xamoon doo ko laal maire bi bu xamoon lii moo ko ciy fekk du dugg ci man xam nga te maire bi peut-être bu nekkoon maay moom sax istafam dam leen di dàq ñoom ñëpp parce que gis nga nit balaa nga koy song song da nga war a def benn enquête préliminaire ci waa ji qui sa ce sa est ce bu defoon benn enquête bu ndaw ci man amaana man xam naa ne man duma laal xam naa ni duma laal quoi mais dafa yaakaaroon nag man benn wayaa wayaa laa da ngay ñëw rek def ma benn wayaas rek daw génn ma ne ko noo mais ba ma dafa dal ci ëkk moom xam na ni ëkk la laal modestement parlé je ne juge pas en tant que supporter mais man du ma n'importe qui man gars yi xam nan ma ko waa comprendre nga kon sànq ne gisee wu ma sama turu papa pour mën a nekk Ndiaye Evans comprendre nga lu naan doon sa bàyyi doon sa bàyyi ko gën man j'aurais préféré man ma dem ak sama ay propres moyens mais man du ma utiliser sama turu papa pour nga naan kii mooy doomu diw kii mooy doomu diw ndax sama papa ba ma doon siiw boobu ñoom juddooguñu ñoom ba mu doon siiw boobu avant RTS di la la siiw ba RTS am muy def émission Sénégal bi yëpp xam ko foofu benn parenthèse la woon comprends nga léegi tamit moom nu indi nu dóor premier procès mu daw loolu euh, avant gàmmu gi la avant gàmmu gi la mercredi avant gàmmu gi léegi jouru gàmmu gi mercredi nu tëggaat procès mu daw ba waaw muy ñaar ba troisième bi nag mu ñëw mais ñëwul moom mais dafa yónnee mindaanam la yónnee at chauffeur bi ab avocat wam yóbbante galgal ubul làmb mhm. te moom bés mu ñëwoon sax lay gën a ñaaw ndax si lay gën a jëlee defet bu gën a garaaw waaye teewul nag jël na ko foofu comprendre nga léegi nag nu laaj ma kon nu problème bi demee ma expliqué kon lu ma expliqué nii lu tubaab naan tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément comprendre nga ñoom nag ban leen woowee devant la barre nuy ñëw di tergiverser ñaan Moustapha Ndiaye ñëw na fa benn yoon kii trois xam nga juge bi ne eh, jóge leen fi. Ah yàlla avocat bi nekk fa. xam nga tamit di wax nee na deux ans d' emprisonnement ferme plus vingt million nee na ñi ñi ñi dañuy foowee seen xel mi quoi mais ba ma jëlee parole tamit dama leen massacré ñoom ñëpp. waaw waaw man yor naa samay bagage maire bi tamit lan la ma la yoon doon toppee nee na menace de mort ak publier yoo photo photo yoo xam ne aw ma ci autorisation. mais lu ko xam ci réseaux sociaux yi nga xamee. waaw lan mooy menace de mort. yow man xaw ma ndax suba naa yeewu. xaw ma ndax tey man naa fanaan naan damay menacé waate. Hmm? man menacé wu kenn ku may menacé. mais ko dalee sama kaw nag man naa def naa légitime défense man soo dalee sama kaw naa xam ne yow dal nga sama kaw man tamit ma riposté xam nga léegi nag kon ñoom buzz bu ñu doon wax nii laa ci doon wut man wutuma ci buzz bës sax certes nag ñëpp a ko bëgg ndax tamit bëgg nga yow ci métier bi ngay exercer nu gën la cee ràññee ndax wax dëgg yàlla journaliste ak at ñeneen ak ñeneen ñëpp ci yem mais man lii bu nekkoon bës moomu ci dugg kon man maay njëkk a yuuxu ca kaw kon wax naa bu yàgg laa preuve en est que ñaata nit noo ma topp ne ma njaay waxal njaay waxal comprendre nga lu tubaab naan rien ne sert de courir il faut partir à temps man su jotee rek naa wax lu jot ma def ko quoi. Euh, léegi Ndiaye euh, ci tribunal bi euh, juge bi ñoom toppatuñ la dara. non toppatuñ ma dara mun na moon toppee dara mais certes problème bu amee di dinañ woo ñaari parti yi déglu leen waaw mooy kon lu ma la wax rek waaw ne ko instant yi gémmiñ guy wax dëgg moom soo ko xoolee di nga xam ne kii dëgg lay wax maire bi dañ ko war a wax dëgg dafa amee nit ki alalam na ma ko fay man am naa possibilité yi pour plainte ko comprendre nga mais duma ko def comprendre nga ndax man gor laa ko waa te man rus naa sama clients yi di ma dégg ñi may foto naan njaay de ko amel xaalis xam ma da yóbbu tribunal wala dalay lay weeje man naa ñëw kër jàmbur yàlla xam ne ni suba ba guddi foto fa bu nu ma la nii kii lébu la wala joolaa la wala séeréer la ndax loolu lijjanti ko te li ma xam a bari nag mais xam ba ca man damay briser le silence xam nga man dama am droit de réserve man du ma foto lu ñaaw du ma xam du lu ma xamal nit ki rek wax ko man doxewu ma noonu ray ma sax mais du tax man ma ma ñëw weeje doomu aadama ndax tamit ngay weeje nit tôt ou tard bés dina ma sa ñëw yàlla weeje la comprendre nga man du ma du ma doxee noonu quoi waaw moom nag moom moo dal sama kaw mais xam ne dal na si kaw nit certes nag bu problème amee gars yi dina laaj di nga expliquer na laaj ne nii at nii la problème bi demee comprendre nga. Mhm. léegi moom joxuñu ko délai pour mu fay la koppar gi mu la war a fay ak lan moo tax parce que du yow yaa ko doon njëkk a photo am na ñu ko doon photo bien avant que yow ndax ñoom dafa am ak ñoom genre problème yi ba tax tey mu ñëw choisir la wala. waaw xam nga tamit bon ñun suñu milieu photo photo yi dafa xaw nekk benn problème lu naan borom lan moo xam ay mattam amaana nag di ñu ci am ay éco at ay rumeur mais doo ma ci xuus foofu carrément du ma ci approfondir comprendre nga ndax tamit danoo ñun bokk benn milieu bokk benn bloc di nga am ay éco di nga am ay renseignement mais man du ma sukkandiku carrément exactement ci loolu loolu daal mais di ci am daal mais bu la nit laajee ne la an say foofu amaana ñenn ñooñu bëggoon témoigner mën nañ ruux arrière daw moo tax doo ci bëgg di impliqué nit comprendre nga man samay mbir laa xam waaw kon sànq lim la wax ni neen bu nekkee porte plante man possibilité bi am naa ko comprendre nga mais man sama alal su ma ko gënee bëgg dama koy bàyyi ak yow ngoy li ngoy faal li mu ma ameel nit ame moment yi may wax ak yow nit amee na ma lu ko ëpp te su may seetaan dina xam ne njaay bii kat amee naa ko xaalis bal wallaahi dama am ñoo xam dañ may wone ma ah man de sama nijaay wala sama jarbaat bii kat mën naa seede na na xaalis ma ne ko su ma ko gënee soxla na ndax man alal ma fekk fa may bàyyi soxla alal bu ko barke alxuraanu karim du ma ko lekk du ko jox samay waa kër comprends man lépp lu may lekk wala luy dugg sama biir bii day lew je travaille à la sueur de mon front man damay job ba mu metti nga xam ne su ma jotee xaalis ma xam ne instant yi jot naa ko ma mën ci barkeel soo gisee nuy liggéey nag juste pour am lu nu sutur la mais man alalu aadama àdduna man faqul sama bët ndax doo dee ba nu suulaaleel la ko lii soo gisee nuy liggéey c'était juste pour am lu nu suturloo mais man xam naa ne bés si mës a ñëw nunu lëmas la juróom-ñaari mètre perkaal dugal la ci pax te ñu baax ñu mel ni yéen nooy taxaw di la fi daawu di la ñaanal yàlla te doo yóbbu dara kon nag moo tax lépp looy def rek na rafet comprendre nga na nice waaw man nag soo ma fayul dóor naa ko ci procès yi trois fois ba procès sunu borom bi nag naa ko fa dóoraat non fayaguma man garaawut su ma fayul moom non amul problème parce que man déjà xam nga tamit euh, procès tribunal dafa metti déjà man temps mu ma jëlal depuis màggal gi ba yée léegi nii mënoo fexe ba liggéey wala nga def dara yéeg wàcc boobu temps bu mu lay jëlal dafa bari ay woo témoigné fi expliqué te jot boobu man aw ko man damay liggéey quoi comprendre nga puisque aw ma temps boobu moom ko ko jaralee xëy na sunu borom bi boobu xëy na suñu demee foofu tamit instant yi dana ma su ma ko gañee ci procès boobu xëy na mu fay ma su ma fayul tamit moom la concerné rek euh, léegi lépp leer na ñëpp xam nañ problème bi nu mu demee ndax Ndiaye expliqué nga lépp mais beneen point bi mooy dafa amoon ku génn euh, un certain mbay seetaan nga interview bi euh, mu wax ne yow cogg nga fa yaa bëggoon buzz yaa dem ñu jox la cinquante mille nga bëgg a génn di yàq deru Ngoy Fall xam nga man d'habitude man du ma waxtaan ak cogg maan barki leeru alxuraan yal naa dugg safara kooku xaw ma ko. Ah kooku xaw ma ko. nee na mu ngi woon ci màggal gi su fa nekkee tamit man gisuma ko wala remarqué wu ma ko comprendre nga c'est que xam nga lu may ga may ga wayoon na benn way sax naan fas naan euh, soo bëggee mën naa ko génneel maanaam ñii di cogg nan dem uti ji métier waaw man man du ma cogg kenn man xamala laa xam liggéey jaamu yàlla comprendre nga mais nag nekk di topp ci ginnaaw nit ñi di ko cogg loolu dafa rafetul. xaw ma ko mosuma ko gis te lu muy wax barke salaatil faatiha dara amu ci ñoom xam lan moo leen sonal ay buzz man wax naa léegi man man damaa judd ci buzz. comprendre nga ay man maa bëggoon buzz moom mu defaa nii maire bi maanaam ñoom dañuy xalamal maire bi di ko riitil te man du ma xalamal kenn du ma riitil kenn juddu gu rëy ndey ak bàyyi la taar yàlla fulla ak fayda borom fulla at fayda nit yaa koy def ci yow wërsëgu doomu aadama nit yoru ko yàlla moo yor wërsëg bi moo jël diw alal bi jaarale ko ci diw pour mu jox ko diw ñoom nag peut-être weccit bu ñu leen di jox ñu leen di yónni maire bi bokk ay doomam di jël ay doomu jàmbur di leen yónni ndax tamit ba ca tribunal bi ay doomu jàmbur la fa indi muy mindaan beeg chauffeur bi te pourtant nag ba ma doon wax ak moom barki leeru alxuraan doomam bu mu jur moo ngi toog kooku tey mooy oculaire la léegi nag ñoo ñu di cogg nag am na yoo xam ne war nga ko mën a éviter man man bëgguma cogg man doomam moo ngi toog li may wax yëpp mu ngi koy dégg maire bi sax ba ma doon woo téléphone ci numéro doomam boobu la ma woowee kon doomam boobu tey mooy oculaire li tax indiwu ko tribunal li tax yónniwu ko ci média yi pour mu wax muy jël ay doomu jàmbur tamit ñooñu tamit waaye de bay bëgg dee génn taxaw naan non c'est que njaay moom bës ak nangam sangam ak yu demee noonu mais ñooñu dama leen tontu ku ci génn ba wax sax ñëw ne ma njaay diw nee na lii sax aajowul sax ngeen di ñëw ci man naan ma njaay diw nee man aw maag ñooñu affaire man xaw ma leen soxloo ma leen xam comprendre nga man sama job am damay liggéey je travaille xam ma man ñooñu aw ma seen temps comprendre nga lu ñuy wax yooyu yëpp parce que déjà Ami Dione muy mindaani ba mu njëkkee génn Seneweb dafa ne mooy doomu maire bi di blanchiru ñooyu ñëpp yëg nañ ko moom nekkul doomu maire bi ab mindaan la fa comprendre nga kii tamit génn génnoon ki ngay tudd nii dëkk dëgg naa ko tuuti ba mu nee nii man maay rakk maire bi affaire yooyu ñooñu ñëpp ay coggu maan lan duñu ay rakk maire bi ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ay coggu maan lan quoi ay coggu maan lan foofu quoi moom lu may kii nii quoi xaar xaar ma tegal la fii nii parce que no dafa am yoo xam ne c'est que kii may nga da ci maanaam gis nga lu tubaab tubaab dafa ne seuls les artistes savent parler way bii xam naa connaisseurs yi war nañ ko xam xana way bi ñan la ciy waxal maanaam ñii di cogg nit di topp nit ñooñu la ciy waxal comprendre nga waaw su maanaam da nga waa ji ab cogg la bu génn wax rek waaw benn cogg bu génn wax la rek waaw comprendre nga. mais ñoom li ñu leen wax noonu yëpp naan maître El Hadj Diouf da a photo loolu ci problème bi hmm. non c'est que kaawu man bëgguma ci sax avancé comprendre nga ndax man wax bu neex at wax bu rafet laa xam man sooy wax wax bu neex at wax bu rafet mm-hmm. sama gaayaan ngay nekk mm-hmm. comprendre nga booy wax wax bu ñaaw nag kooku yow la concerné ñëw na nag moo ngi doon wax ay waxam mm-hmm. certes nag. gars yi nu ngi doon wax affaire de Ndiaye il n'est pas professionnel parce que nit ku la engagé si programme invité am sa yoon néew ci da nga ko war a photo non si photo naa ko ak maire bi dama ko photo tactique mais man concentré wu ci moom dama ko dóor rek rek rek écarté ko sama sama sama sama champ de vision jublu ci maire bi léegi nag moom lu ma bëggoon kon des fois nga ñëw ci cérémonie fekk fa benn personnalité wala benn célébrité yow nga ñëw photo ko individuel moom photo individuel yu mu bëggoon man laa ko defarul duma ko photo mais photo naa ko nii parce que def na yaa engagé moom ñëw na man lijjantiwu ma loolu dama leen boole photo rek après écarté ko continuer nag di photo paa beeg bi mais lu ma bëggoon nag war nekk man maay diw photo moom man moo tax photo wu ko te moom ma bu amoon ngénte wala mariage këram woo ma fay ma xaalis gu dul jeex sax ne ma photo ma man photo ko comprendre nga su ma fayoon alal gu bëri ne ma kaay foto ma sama kër du ma ko photo aw ma problème nag euh, def naa politique mais waa APR aw ma ñoom problème ndax tamit soo amee seetlu fii nii gis nga fii en 2019 fii kin fat place la woon juste événement bi Macky Sall moo ko présider woon après Covid bi dugg maa ko couvrir woon kin fat place comprendre nga man fii nii tamit mën naa la fi ni am na koo xam ne foog mu tudd turam tuuti muy Ousmane Sakal Dieng moom mooy moom mooy maire Sakal comprendre nga moom soo seetee ba seet dafay ñëw man maa koy photo te pourtant conseil spécial président Macky Sall la ay image noo nekk nii mu nekk waajoo xam ne jobkat la waaju jàmbaare waa ju man liggéey ba pare macha allah am xam-xam bi comprends nga ndax maak moom dañuy waxtaan moom xam na sama position politique ndax man j'ai fait de la politique bokk naa gère génération rupture Pape Samba Awa Diop ba ma fa dugaloon moom moo nekk en ce moment nii chef protocole Macky Sall président Macky Sall comprendre nga man bokk naa CELD la convention des élèves libéraux de Dakar bokk mel mouvement des élèves et étudiants à l'époque CELD mooy gère génération kii celle de mooy euh, la convention de élèves libéraux de Dakar j'étais le secrétaire général à l'organisation man marqué naa sama empreinte ci wàllu politique comprendre nga loolu nag xam naa nag suñ ko naree yaatal fii day xaw a sori waa benn parenthèse la woon rek mais man politique moom wax dëgg yàlla def naa ko te xam naa gars yi ba 2012 nag dama tekki woon léegi yi mais après xam ma rek dama cee xaw a duggaat tuuti mais juste pour soutenir noonu quoi waaw mais nag man boolewuma sama aspect politique ak aspect professionnel bi man waa APR de à Z ku ma ci woo damay liggéey ak ñoom d'ailleurs élection présidentielle yi am na ñoo xam ne man maa leen di defaral seen affiche seen affiche yi Ousmane Sakal Dieng conseil spécial Macky Sall man maa koy defaral kii mi quoi. Ndiaye euh, waxtaan bi am na solo te li waroon a leer leer na yëpp euh, lan ngay tàggatoo. waaw lu may tàggatoo lii daal laa leen bëggoon euh, tàgg tàggatool xaaral tuuti may leen ko non non non non lii nii daal. non hm? non man man non c'est man gis nga cogg baaxul gis nga góor da ngay liggéey góor dangay ngay ut métier man loolu laa gëm waaye topp ci ginnaaw nit di wax lu ko neex di dox lu ko neex quoi non du du kii sax mais euh, kii bi réseau mooy kii nii quoi xaaral xaaral mais dafa am kii maanaam gis nga alal Ndeye Marie Ndiaye wax na wax na bay na ko quoi alal bu mu la jaral sa ngor yàbbi di ko lekkaat xam nga maanaam gor su ne gor nga alalu àdduna yi at ay bës jaru ko gis nga contrat war nañ ko war a mën a renégocier boo amaane boo am kii yaakaar ne li ma la wax dafa cher nga ne ma njaay li nga ma wax kat dafa cher yàgg naa ko defaral ay nit barke salaatil faatiya nit jël na ma fii di ma liggéeyloo comprendre nga sept mois avant la ma wax mariage am préparé ko def ci lu nekk mais ba muy ba ci jour bi ba ci veille bi mu xamam ne ma yoruma xaalis ma ñëw woo sama frère bi Lamine expliqué ko mi ne ma nii kàndem du dóore ko ndax nit ci lu ngay yëngatu loolu ngay dóoree billaahi ba ma doon dem précipité naa yóbbuwuma sax xaalis daal sama moto ban demee ba mu génn rek nu nar dem place de souvenir pour defi shooting yi ma ne eh, ma ne faat naa sama xaalis ma ñëw ne grand bi dama aal 1000 francs ma jënd essence damay feccale pour nu dem waaj a xamal ma ne ma wallaahi yorul ma ne ko kon garaawul billaahi liggéeyal naa ko de A à Z deux ans après la ma soog a di fay par nànk-nànk comprend nga moo tax man alal fu ma fekk tey man fa la may bàyyi quoi. waaw waaw. Mhm. waaw nu ngi lay jaajëfal yéen tamit wax dëgg yàlla moom boobu ba tey sonn ngeen ci bu baax a baax. waaw man moom awma seen fay quoi waaw lu war a leer leer na waaw lu ci des nag instant bu wax yi kàddu yi dëngoo moom. nu bàyyi lépp ci xam ne sunu boroom daal moom moo ko doxalee noonu sunu matadi la waaw. aco mu ngi noonu mbokk yi bàyyi xel MPROD TV ak li nga xam ne mooy Dakar Buzz ah, gis ngeen li leen fi indiloon tey carte gi nag fu mu ne nii leer na ñaan ñi ci diggante Ngoy Fall ak ki nga xam ne mooy Ndiaye di ko doon foto ci màggalu Touba bi Ndiaye mi nag wax na version am te tamit dem nañ ci yoon yoon leeral na lépp ah, mu mel ni nag Ndiaye moo mujj am dëgg ci seen kaw ñu leen jox dox daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf